Les réseaux sociaux aussi il faut ñu am lu ñu wax c'est important parce que réseau social du média aussi parce que information dafa am nu ñu koy wutee dafa am nu ñu koy indee dafa am nu koy traité mm-hmm. réseau social mooy nga toog sa clavier ordinateur bind lu la neex il faut aussi ñun les médias traditionnels ñu am courage wax nit ñi ni il faut nous def attention ci réseaux sociaux mm-hmm. parce que ñepp xam nañ toutes les études le monde, fake news yi fi mu gën a ci réseaux sociaux yi la yow man nga jël tay tour bu la neex bind lu la neex wax lu la neex tek ko fu la neex mm-hmm. bu ñu démé nak ba accepter opinion sénégalaise bi mm-hmm. réseaux sociaux diko ko lolu c'est le chaos donc réseaux sociaux yi nañ bind lu la neex

loolu lu ñuy gëstu la caytu ko vérifier ko maanaam càmbar ko soog koo jox nit ñi léegi nag opinion Sénégal bis bu ñu demee ba yaakaar ni réseau social daf leen a war a informer mhm. bu ñu demee ba toll foofu lu ne mën naa xew ci réew mi mhm. loolu il faut il faut aussi ñu koy ñu koy wax di ko di ko di ko martelé mhm. donc voilà donc